mbokku internet yi seetaan Thiès 24 ñu dikta dikkaat ak yéen ci seen émission en aparté en aparté nag tey ñu am gan di Alassane Kanté di responsable ci grand parti yore grand parti fii ci Thiès grand parti bu euh, euh, Gakou kon nag Alassane ñu bàyyi la nga nuyu ak suñu internet yi bara ñuy dugg ci waxtaan bi. waa asalaamaaleykum euh, Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax xam nga vraiment di rafetlu ci invitation bi. Mm-hmm. waaw man Alassane Kanté responsable grand partie xam nga fii ci Thiès nekk fekk samay naataango yu bari ànd ak ñoom di liggéey ñu nekk ñun ñëpp ay responsable yoo xam ne vraiment euh, macha allah ñun ñëpp ñu ngi yëngu ci mbir mi waaw vraiment daal cees euh, sunu cees la cees Thièsu grand parti la waaw Alassane laaj bu njëkk bi day ñu ngi soo a génn ci élection HCCT barki démb yéen defe naa ni moom yéen ci opposition bi ngeen bokkoon mais ban ban analyse ngay def ci élection yi ni mu deme nii. waaw d' accord yi ni mu demee. parce que boycott bi nga xam ne moom la moom la ñu def. xam nga boycott bi comme opposition bi yëpp dañ ci d' accord. ñu def ko bàyyi Macky Sall aussi xam nga euh, ak euh, propre responsabilité xam nga mu def élection am xam nga mu nekk ay élection yoo xam ne ay élection boppam la waaw ñun moom amuñu si benn responsabilité sudul ñu toog xam nga pour seetaan ko. Mm, mais mais mais nag mais nag Alassane nag bu ñu seetee affaire bi aussi Benno Bokk Yaakaar victoire bu mag la ci amee ndax taux de participation bi élevé na ba pare ñu am euh, majorité bi kooku c'est une majorité méritée kooku moom mënu leen ko. mais d'accord parce que xam nga bu fekkee yaa ngi dem tey tey tey tey ci xare. xam nga nga dem yow dong xam nga amoo ku la ne déet amoo ku la ne waaw xam nga yaa ngi dégg c'est très normal nga am majorité xam nga. majorité bi c'est très normal parce que mm-hmm. tey amul kenn ku muy ku muy jonganteel mm-hmm. moom dong la woon Benno Bokk Yaakaar ak seeni élection mm-hmm. donc c'est très normal ñu am majorité bi loolu la ko mais yéen au conseil au conseil bi lu tax ngeen di ko bañ mais tax ñu koy bañ parce que ni mbir mi demee mais mais au conseil bi dafa nekkoon ci ci référendum bi bi sénégalais yi voté ko yéen voté woon ngeen référendum mais d'accord voté nañ ko mais musuñu jóg di wax ni au conseil bi amalul Sénégal njëriñ amul benn njëriñ boo xam ne tey jii gis nañu un conseil au conseil bi amal ko Sénégal loolu la moo tax comme ñun nag dañu continuer di ko bañ kon amuñu droit tey naan ñun dañuy dem di bokk ci ay élection amuñu droit boobu kon day mel ni dañuy contredire suñu bopp loolu dong la moo tax euh, participé wuñ si. Mhm. opposition bi yëpp daal di banque seen loxo ñu bàyyi ko ak ay élection mhm. Mhm. Euh, euh, assemblée nationale dañ ñu ngi koy waaj a fi mu ne. waaw naa ne su ma juumulee le douze. lañ ko lañ ko convoqué. yow <laughs> yan projection nga def foofu. waaw d' accord xam nga assemblée nationale bi ku gis ni mu defee. xam nga vraiment tey jii di nga xam ne tey. am na beneen changement. xam nga parce que tey jii musuñu taxaw xam nga tey cohabitation bi am tey. am tey musul am xam nga musul am tey jii tey jii lépp tey lépp tey jii tey assemblée tey fu ñu am secrétaire élu xam nga day euh, opposition bi day am benn ñu am benn xam nga président yi tamit noonu lay demee donc euh, tey euh, cohabitation bi ñu doon bañ tey am na am na kon kon yaakaar ngeen daal affaire bi man ngeen koo jël a ah, am naa ci yaakaar am naa ci yaakaar tey jii nii situation bi demee Macky Sall bu deful ndànk. Mm. ah mm. bu deful ndànk président assemblée nationale opposition bi dina ko jël. gouvernement bi ñuy projeté nii di ñëw nag. ak ak premier ministre. soo loolu aussi ay moment politique très foor la fii ci Sénégal. mais si c'est parce que tey Macky Sall tey lépp lu mu mën a teg nekkul di doon gouvernement technocrate tey gouvernement bi muy teg gouvernement politique lay doon pour lan pour mën a projeté si troisième manda mais troisième manda boobu kooku sénégalais yi duñ ko ko mës a nangul. kooku du mës a am. waaw kooku du mës a am te lépp lu mu ko jaral dina ko jaral opposition bi. waaw troisième mandat bi. troisième mandat. Mhm. yow dañu gis ci presse bi tey euh, euh, ku am yëkkati ay lu mu kii ci Massaly est-ce que est-ce que gis nga ko. non Massaly. Euh, xam nga yëkkati ko ci gàkku. waaw Massaly li muy Massaly dina doon loo xam ne. Hmm. xam nga parce que lu may war a neex la tuuti. Hmm. ndax Massaly. dafa nekk koo xam ne Ceesuwaay yëpp xam nañ ko Massaly dafa nekk koo xam ne xam nga moom képp ku mu àndal c'est pour les sales besoins Massaly làmminam la ngemboo Massaly du wax dëgg Massaly du dox dëgg Massaly du fekke jàmm Massaly tey bu taxawee di wax ci président Gakou président Gakou amul benn sénégalais tey boo xam ne war ngaa a taxaw tey am looy représenté président Gakou loo koy reproché amul président Gakou depuis boobu nekk na fi ministre xam nga nekk na ak lu mu ministre des sports mhm. xam nga géré fii euh, conseil régional bu Dakar mhm. xam nga amul lenn loo xam ne tey mën nga ci reproché gàkku mhm. gàkku ñeme mën na yëkkati ay loxoom ay loxoom set xam nga tey boo gisee tey gàkku neex a nekkal gàkku ne ñu neex a jaay image yu gàkku gàkku pour jaay image am yomb ci sénégalais yi parce que dafa nekk nit ku set loxo VAR yaa ngi fii tout récemment y a deux jours de cela ñu ngi teg ay VAR yoo xam ne ya a Boun Abdallah xam nga buy wax ci buy wax ci euh, ci ci ci ci ci ci président Gakou xam nga euh, Mimi Touré. tout récemment way Mimi Touré ancien premier ministre xam nga Mimi ture tout récemment keroog maa ngi déglu benn vidéo am muy wax ci président Gakou. Hmm. xam nga yaa ngi dégg euh, Souleymane Ndéné Ndiaye. tout récemment keroog mu ngi wax ci président Gakou. Hmm. xam nga ñoom ñëpp xam nañu Gakou loxoom dafa set. Gakou amul lu ko nit mën a reproché te Macky Sall ku ko jox cër la. Macky Sall musoo toog ba nga dégg fenn fu muy wax lu ñaaw ci gàkku te gàkku amul temps boobu pour wax nit lu ñaaw mais candidature ga candidature gàkku tey amul tey say sénégalais yëpp ko sénégalais yëpp ko demandé. xam nga opinion nationale bi ñëpp ñoo demandé loolu ñoo demandé candidature gàkku dafa nekk candidature boo xam ne bu légitime xam nga bu jaar yoon boo xam ne tey amul ku ci mën a teg baat ndax gàkku en 2019 présenté wuloon xam nga yàlla def ci affaire parrainage yi. xam nga ñu bloqué ko si. Mhm. xam nga ba mu ñëwee après si la ñu créé IDI 2019. ñu ànd xam nga liggéey ci liggéey boobu. mais Malick Gakou tey jii foo dugg tey ci Sénégal xam nga partout partout tey amul fooy dem boo fa fekk benn membre grand parti. xam nga tey grand parti muy fii muy si diaspora bi fépp Malick Gakou il est représenté partout. Mhm. donc day loo xam ne tey candidature bu légitime la. kon noo ma noo expliqué wax jooju kon. xam nga réaction boobu noo ko expliqué non ni euh, kii. Euh, dafa nekk genre boo xam ne euh, moom xëy na dafa am lu muy wut boo déggee fan yi yëpp mi ngi nekk di wax ci Sonko xam nga mais Sonko du moroomam xam nga Sonko du moroomam te moom day nekk nit koo xam ne day inventé mais moom ñun xam nañ ko ñun ñoo bokk suñu Cees moom tout juste foo ko fekk les sales besoins si loolu lay dox xam nga fii ba muy taal tribune bi fii fii la ñu fekkoon xam nga fii ba Bachir Diawara nekkee pale tey jii mi ngi yàq Karim Wade lu nekk naan je ne veux même pas entendre de Karim Wade xam nga je ne veux même pas parler de Karim Wade xam nga li ma la bés bu nekk te Karim Wade fii amul lu mu deful pour moom bàyyu Karim amul lu mu ko defalul donc koo xam ne tey bu la wanee boo ko wanee ginnaaw mu yàq sa der kooku du royukaay moom amul lu mu mën a wax Malick Gakou parce que Malick Gakou du moom ci benn boor hmm. du ci saayir du ci baatin amul lu mu mën a wax ci Malick Gakou buy wax mali Gakou xam nga euh, dafa dafa mel ni euh, tàgguwul ay mbokkam moom moo tàgguwul ay mbokkam moom mi nga xam ne toujours mi ngi xool ci lu ñaaw di ko wax nit tey président Macky Sall mii tey muy muy muy tagg président Macky Sall mi muy mi muy wax amul lu mu yàggul amul lu mu yàggul yàgg président Macky Sall fii lu ne wax na ko fii xam nga naan c'est un frère parti mais Macky Sall nii la mel nii la mel. donc kooku kooku ñëpp xam nañ ko Sénégalais yëpp xam nañ ko. nekk na nit koo xam ne xam nga du royukaay. Ceesuwaay yi amul fenn fu ñu ko teg te lépp lu mu la wax amul lépp boo ko bu la waxee pukk juróom-ñeent yee du dëgg. Mhm. voilà mais nag yor na parti de te de moom boo moytul candidat lay doon de. kon nag lii ngay wax ci mag yi. non ci lan. Ah, moom mi ngi topp bokk moom mi ah, nekk ci ginnaaw Pape Diop yor na parti xam nga waaw xam nga parti xam nga parti dafa am. xam nga il est légitime pour pour. boo xoolee ñi fi am parti ñëpp. Mm. genn wàll gi yëpp ay parti pantre la. te moom loolu la. tout récemment mi ngi accusé Thiès waay fii naan ay posteurs am na sotti huile mais c'est archi faux. Mm. ce qu'il dit là c'est pas vrai. xam nga Cees waay amuñu jotam xoolal ñun lijjanti wuñu masali hmm. gàkku du moroomam bu hmm. bëggee na ñëw wax ak poulain gàkku yi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain ñun lier naa gàkku yii hmm. ñun la war a waxal bu amee lu muy wax mais deux mille vingt quatre bi ndax euh, liggéey bi commencé na parce que deux mille vingt quatre c' est bientôt hein. Ah, mais d' accord deux mille vingt quatre c' est dans seize mois. massification parti bi actuellement ñun ñëpp ci la ñu taxawee. barki démb la ñu pare suñu séminaire mais nag mais nag xam nga Thiès kenn déggu leen waaw non Thiès xam nga moom laa lay wax nii ñi ngi soog a pare suñu séminaire keroog dimanche mhm. xam nga actuellement leen naa yëpp jóg nañu ñëpp takk nañu seen ndigg mhm. xam nga këréel yi fi amoon nag yëpp jete nañ ko fële ñun ñëpp dañu ànd bokk ndey bokk baay ànd ndey ànd bokk ndey bokk baay mhm. ñun ñëpp jiit ànd ak suñuy jigéen dëggal suñu président xam ni 2024 dañuy dem pale mais Macky Sall ñëpp xam nañ ni du candidat ñëpp xam nañ ni leer na di du candidat parce que mënul nekk candidat Macky Sall def na deux mandats def na mandat sept ans pare def mandaa cinq ans bii muy terminé. waaw mais gars yi loolu aussi mooy mais mandat mandat la mandat mandat la parce que ba mu ñëwee. dafa demandé woon. non constitution bi li ñu wax lu leer naññ la. xam nga nit fii mënatu fee am troisième mandat mënatu fee am troisième mandat xëy na nag dañuy lëre nit ñi xam nga di dox ci xalaatu nit ñi pour nax nit ñi mais mënul nekk ba mu ñëwee dafa wàññi daf ko doon wàññi conseil constitutionnel ne mënul nekk mais sept ans yooyu ci décompte bi la bokk bii mooy deuxième mandat mais Mimi Touré wax na ko Boun Abdallah jon wax na ko euh, Youm wax na ko Madior Fall wax nañ ko waaw moom it waxoon na bu ñëwee def loolu xam nga mandat bi ba mu jeex mooy pare na day lem ay kaakeem dem yoonam xam nga parce que gis nañu fii ba ko Ablaye Wade bëggee def troisième mandat bi lu mu waxoon donc loolu mu waxoon tey buñ ko ci fekk see moom tey xam na ni tey du am du troisième mandat du am troisième mandat te tey jii ku fi nekk tey candidat mu leer ci ñëpp leer ci bopp ñëpp muy le président Malick Gakou mais nag pour toutes les chances à cette candidature. Mhm. bu nga laajoon responsable grand parti yi barki dem wax nañ ko ci séminaire bi tey ñun ñëpp Thiès xëy na entente bi bëriwu fi woon ñu ngi doon def guerre guerre de positionnement amu fi woon mais tey jii fi ñu toll nii ñun ñëpp joxante nañu loxo non si si si biir xol yi ko tibbee ñun ñëpp joxante nañu loxo le doyen alin Diop Daxa xam nga sunu jigéen ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñoom xam nga ñoom Ndeye Aida Fall ñoom Jatu euh, Fall ñoom Jatu Ndom ñoom maam Fama Fall xam nga partout jigéen ñi fi nekk ñëpp ci parti bi ñëpp taxaw nañu joxante loxo ñoom Awa Diagne bàyyiwuñu kenn xam nga responsable yi fi nekk ay ñoom Pape Meng ñoom Pape dàmm ñëpp dañu taxaw ñun ñëpp ñu boole suñu xol yi xam nga àndandoo tey nag pour jublu ci liggéey bi liggéey bi mooy lan mm. massifier parti bi xam nga gën a yaatal fépp fu ñu amul woon représentant ñu dem fa dem fa wut fa représentant pour ñun 2024 ñu porte euh, ñu jël Malick Gakou yóbbu ko Palais. Alassane Kanté ñu amoon mbégte loor dalal la fii ci suñu émission. lan ngay tàggatoo ak mbokk yi. waaw li may tàggatoo mbokk yi mooy vraiment tey euh, nañu xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. yàq baaxul wax ju ñaaw baaxul ndax tey ku dégg masali tey fii mu génne fan yii yëpp mu ngi si deru gàkku fan yii yëpp mi ngi ci deru Sonko xam nga yooyu amul njariñ yooyu ñun dépassé nañ ko xam nga ñun lan la ñuy lan la ñuy def actuellement préparer 2024 nan lañuy ñuy jëlee sunu candidat yóbbu ko palais. kon nag mbokki internet yi mi ngi noonu ñu sant leen gërëm leen ñu doon recevoir tey Alassane Kanté di responsable grand parti seen émission en aparté ak avec leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf